mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci secteur Adam Rufisque euh, tey nag euh, maa ngi taxaw ci bokk boo xam ni euh, dafa naa ni champion bi dina ma présenté ko kilifa ziar ah, maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu yëpp. di wax ni man la Serigne Mansour Gueye. bu Foumbir agro business. Mhm. Serigne Mansour Gueye bu Ferme Maktoum. macha allah pare tey pour waxtaanee xel. mais tey moom new ma Ferme Maktoum maa ngi Feu Vert. waaw Feu Vert agro business mooy lan. lan la demee ak Ferme Maktoum. non xam nga feu vert naa ne succursale Fer Maktoum la. ah ok waaw Fer Maktoum feu vert benn benn la waaw paa dafa am Barzil borom daara ji. la Lamine am Fer Maktoum. xale yi ñëw fusionné def feu vert agro business. Ah, muy vision boo xam ne nag feu yi dafa verte xale ñoo toll ci dem. ñoo toll ci développé ñoo toll ci émergé ñu ne feu vert feu yi dañoo business. agro business de l' mooy bépp business bu tënku ci diggante élevage ak eh. agriculture. Eh. waaw waaw léegi-léegi dama dégg ngeen succursale succursale dina génne lii. waa mais. Ah, dama ni baal ngay dem femelle yi ma gis ah bu ma fi gis na yo da doy war de. non mais benn liggéey la rek est ce que est ci bureau bu mag ba te tànn na ba nga téye ko ci secrétaire salle yi. non mais normal xam nga la. Euh, waaw synthèse la waaw ah, synthèse la xam nga liggéey bi moom ki nekk ci suuf di xool. Euh. war normalement war na benn touche mu indi nag. bu say papa di yar. ba nga màgg nag seen biir. waaw war nga indi jeunesse ah. nag. man de en tout cas ba ma ba ma ah. ñëwee taxaw fii ba jaag ba ba mais mais mais li nga exposé tey lan la yar saa nga mu fii nii dèjà. waaw xam nga xar nag en vérité mën naa ne ay doomu sàllangaar yi ñoo fi ëpp. ok fooy mag bi caat doomu job si la mais mën naa ne c' le résumé. mooy technique bi waaw c' est le résumé du travail des gens qui ont participé à l' élaboration des du lardu. ok waaw dama juddi fekk sama papa di yar laa doon di métisé. ok comme paa yi ñu tam. ok dugg ci xar tamit nekkaat ci. nekkaat ci macha allah mën naa ne xar yi ñu liggéeyee naa ne depuis Birame Diémé wala mën naa depuis Manga. ok nga gañe woon Saldam Saldam 2000. waaw xar yi seen def dafa la. ok waaw ñun nu ñuy yaree chaque jour dañuy fexe ba sa mën xar bu ne mën naa ko tagge ba maam. ba maam ba vingt ans ci ginnaaw. parce que lép da nga koy teg ci calcul. waaw ci calcul élevage complémentarité la ok waaw ah, parfois nga seet ji benn jeune bu résistif pour delloosi ko parfois nga am xar nga liggéey ci jeune dominant bi. ok waaw di critère de sélection nag xar bu ne nga lu mu baax la nga xam ko lu mu faible la nga xam ko. entre parenthèse li nga wax ni am na benn question moo bëggoon a laaj boo xam ni il faut ma laaj la ah. mooy def benn xar nekk jeune mâle. Hmm. ci jeune mâle am rek ñu ne eh kii de champion lay doon. Hmm. mu ne may dugg ay 13 mois 14 mois 15 hmm. mu commencé bete. waaw ah, neex na la may la ko. neex loxo xam nga xar bu juddoo yaayam neex soow éleveur bi mën xar. waaw mboolem du taxaw. taxaw ah, waaye boo xasee romb 6 mois. waaw jëm set sa deret mooy ñëw. ah deret day ñëw. deret day ñëw moom xar day jékki-jékki taxaw foofu. waaw non bu dee deretam doo ne. waaw day dem day dem mais bu dee nag capacité génétique bi mayu ko mu progressé day direeku. Ah. parce que jaaxal na ma dafa am ay yoo xam ni. waaw ba ma leen ba nekk jeune mâle di am 8 mois 9. Ah, da après dama jékki-jékki gisal nañ ci benn à 16 dematuñu. mais éleveurs yi dëgg xamee nañ loolu éleveurs yi dëgg. ok xamee nañ loolu parce que xar ak xale mooy am. ok gis nga xale. Uh-huh. bu parent amee moyen mu nekk fu sedd di lekk lu baax ñu koy jënd ay céréales ak yooyu. waaw xale bi day taay rafet am jëmm. ok waaye bu ñu màggee nag ba dëgër ku sa baay njool yaa njool ku sa baay gàtt da ngay gàtt mais xale doomu ndaam bi mën na ëpp doomu njool mi te bu ñu màggee deret ñëw. Ah, sama question bi ah leer na tey nag. <laughs> firmaal bi kan la. kii mooy docteur Mansour. ñaata mois la am. dix mois la dis-moi di doomu Sàllangaari. Uh-huh. yaayam di ren Bachir doomu Bachira ak doomu Kosso. ana ana ana yaayam. yaay mi kër ga mooy doo fan bu mag bu ñuul bi. bu ñuul bi waaw bi la am dix mois la kii tey da da nga ko bëgg taxawal liggéey ak moom wala. waaw mais kii kii kii dañ koy samp liggéey ci parce que roi Bachir bi liggéey nañ ci liggéey nañ ci Sàllangaari bi.

parfois dama naan yéen seen xeetu femelle. euh ni muy mel ak seen dayo je me pose chaque fois cette question moi na ngeen def bay liggéey lool wa mais xam nga xari femelle fi ëpp man na ni mali fi dakk femelle. ñol mom wa bashir c'est le meilleur mala femelle. fan moom tamit ne woon ah Bachir. Bachir ci bom ah bashir d'accord bashir ça veut dire bashir Bachir ci boobu Bachir Bachir ci bom bashir doomu doomu doomu Jeyna la. bokay sa ñu bokk ben yaay. ok yaa deug nga ñëw commande euh, Birame Ndiémé. ok c'était le meilleur mara femelle tamit génération bi ngan di femelle lay jur. Birame Ndiémé ko xam-xam ne fenn mag toll. ok dégg. waaw boo paree nga ñëwaat ci sangu macha allah bi dañoo mën femelle. Roi Bachir xool nga Kaaya xam nga Bachira. waaw kon deret xar yi ñor yëpp waruñu mën a jur doom muy def coomo. oui te sang yi dafa tegaloo magtum gars yi dañuy fàtte rek ni xar yi ku jublu màggal. di ngeen sal dam dëgg yaay ji dafa ëmb ba 10 ñu jox abu une semaine la dem jur.

xar yi bu ñu nekkee xale garaaw garaaw bu taxaw waaw añel nekk xale gars yi naan non gars yi dañoo mën a mbote dañoo mën xar waaw ñoom maasu dañoo mën allah bi ñu ah, neex loxo dañoo neex loxo waaw parce que deret du caaxaan dëgg la ah, bi ak gabar moo leen impressionné bañ jàpp duñ dem la fekk deret la deret la moo ëpp kuy dëgg la ossature sàlngaari kuy amu doom bi am 10 mois gis naa fi kuy am 3 ans yoo xam d' accord kon deret. macha allah wala deret du fen. kon eh, eh, yeneen famille nag yi yeneen famille yi xool xoolal xoolal ma borom teg bu ñuul bee ca nopp yu ñuul yi. kooku doomu Sall Ngaye la. moom mi doomu Sall borom ñaari bu ñuul bi kooku mooy taal bu yàlla taal. Aram Diène moo ci dëgg neexul tëdd. dëgg neexul moom si Caatu Diop si mooy. waaw moo nekk nële te mooy yaay joma ñaaw. très belle exposition. merci beaucoup merci beaucoup grand bi. lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy seen euh, perspective ci élevage ngeen toll nag léegi. parce que liggéey bi ngeen liggéey ba ak lan mooy vision bi encore. non du jeex. Uh-huh. gars yi ñoo gis lii mais ñu ngi togg lu lu leen mën. ok lii gis ñu ngi togg leneen. macha parce que nous on n'est pas suffisant. lu ñu am rek ñàkk ñàkk suffisance moo ñu ko may maanaam li ñu am rek gëm nañ ko mais doole wuñ loolu ñu ngi wuti leneen ok waaw parce que àdduna moom du jeex. dëgg la élevage du jeex ku naagu daagu. Mansour. te bëggu ñëw daagu. waaw Mansour bëggu ñu boobu léegi maa ngi waaj pour ma ñëw kër ga ñu waxtaan. parce que li ma bëgg waxtaan ak euh, Ferme Makhtoum. waaw xaju ci ay box. non en direct lañ koy def. ah. bu ñu jugee foire bi. Ah. <laughs> mooy ma 15 jours ñu organiser lu mag. ñu waxtaan ma wala ki ci ginnaaw jomba ñaaw. waaw ki ci foto bi waaw jeex na. kullu ma kullu ma bi ba bi ba dama lay bo ma bo yéexee maa lay yées non mais yow dama la <laughs> dama lay indi ba kër ga uh-huh. wala xari wala jomma ñaaw ne la locomotive la kullu maal da ngay lonko da ngay lonko wagon waaw moo mën sàll ngaari fuuf ah te min ci ruxul te famille yi nga ma jox ne ci ñaar rapport lañ toll ñoom ñeent ñi seen taw ci tawam la ëmb ñeneen ñaar ñëpp ñee leneen dañoo desee 15 jours avorté normalement bu ñu amoon doom seen doom yi 15 jours la ñu am seen taw lañ jur kon ñun ñëpp premier porte cat bële rek te bi kese moo ci ah, ci mag

joxaama numéro bi adresse bi yow moom foog gars yi woo la nga jox leen ci affaire yi. non 77 225 61 42. 77 759 69 39. ok waaw boo ko bësee rek yaa ngi foofu agro business. fu mu nekk moom. Euh, rond-point guy Kër Massar. Kër Massar ok rond guy gi. ok. incha allah kontaan naa. bëgg naa wér si. moom lañ koy teg bi baax ah, amul amul ragal yow yow sama nga ma sëñ Mansour dañuy doxal dañuy doxal